ah <laughs> Malick ñëw na tegal sa paaka sa jaasi sànnil sa jaasi <laughs> nee na Malick doy na Malick doy na baal ko gardien bi kaay jël kii yóbbu aywa jël leen ko na dem. Ah, ah, ah, tey waaye waa ji laal na sang bi de laal na Seydina Yuusuf. ماذا حل بيدك؟ lu nekk sa loxo bi. ليس شيئا. خذوه معكم إلى سجن القصر yóbbu leen ko ci kaso ba. Ah, lal laal na sang bi de. waaye ñi jógu ñoon lu xew. ما الذي حصل؟ lu xew. قد حاولوا أن يقتلوا جنازة. dañ doon bëgg a rey Yuusuf. هذا يحصل في هذا القصر. mu ni kon loolu am na ci palais bi xew. فوجود جناب يوزرسيف يعني هلاكهم بلا شك mu ni ko nekk Yuusuf nekk ci palais bi moo leen déranger fi mu nekk nii. فهم إنما يدافعون عن وجودهم. nee na moom seen bopp la ñuy aar. هو يعلم جيدا أن قتل يوزرسيف وأخناتون هو السبيل الوحيد لنجاة المعبد. nee na waa église bi yëg nañ ni ñoom rey Yuusuf mooy tax ñu mucc ñoom. nee na ko andil ma li nga xam ne mooy coton ak ndox mu tàng. moom la koy nettoyé nga ñoom daanak ay alcool ak yooyu amuñu ko woon. waaye dañ daan nuggal ndox ba mu nugg rek ñu jël coton bu set nettoyé plaie bi c'est-à-dire góom bi ba mu set doog euh, ca def garab yi in nadarna jayidan fa sanaraahu maana fi kulli aanin wa fi kulli makaan nee na yàlla fu nekk la ñuy gis nee na alihmaaw ak ni nekk ci euh, église bi ñoom ay ay nit ñi doy lañ léegi ñu war nañoo tëral ay plan seet na la ñu mucc ci ñoom. لا داعي للقلق جناب الحاكم فأنا أرى عهد سقوط دين عبادة الأصنام وزوال nee na ko na sa xel dal man gis naa ne ñi nga xam dañuy jaamu xërëm moom seen man-man bëriwul. لا أدري لما السماء حزينة waaye asam am na lu xew de asamaan si daal daa ni ku jàq. لست أرى أخبارا جيدة في السماء الليل asamaan si daal li ma jox mooy xibaar yi ma jox daal mooy am na lu xew بما يتعلق هذا الخبر nee na ko loolu ci ban information bi ci lu muy aju أرى موطني مضطربا وهائجا على كل حال فنحن مسلمون لإرادة الخالق nee na waaye lu ci mënti am daal nañu jébal suñu bopp yàlla rek برسالة ليعقوب النبي nee na ko baadu yonente gi يطلع أباك على حالك ووضعك léegi de xew daal mooy Yuusuf nga bind lettre yónnee ko sa papa pour mu xal pour nga xam pour mu xam ci loo nekk nee na ko rasulul ahad a ma daan tere loolu amaana kon li te li téema dajeeg sama bàyyi bëreetul daal waaye mbokk yi gis ngeen jant ba daa mel ni weeroo daa mel ni lu ñu jàpp loolu tax Yuusuf mu ne xibaar bi ma jant bi jox asamaan jox daal mel na ni am na lu xew waaye ndeysaan ndeke bàyyi ja moo koy xalam gis ngeen bàyyi ja baytul eh, ahzan waaye di xel ma di xalam yusuf kon gis nga am na ko wàññeeku de ndeysaan mbokk yi daa mel ni yusuf loolu la yëg ni xibaar bi ma asamaan jox daal mel na ni xibaar bu tiis la mel na daal am na lu xew mu ne ko ah kon li nga war a def mooy bind sa bàyyi lettre yónnee ko ko pour mu xam ci li nga nekk mu ne amaana nag giseeg sama baay daa soreetul amaana léegi ñu gisee waaye daa mel ni dëkk ba am na ko fa gaañu de ñu ngi noonu indil ko bàyyi pour mu jullee ko kon seen tànn daa mel ni seen tànte xale yi la seet nag kan la ci xale yi xale yi kenn moo gaañu wala soxna yi kenn ci gaañu ala kulli xaal jooy metti na laqad shahadtum fi sanawaati almaadiya kayfa iltaxaqat raxiil wa faa'iqa nee na ko at yi passé raxiil demoon na ak fayxa nee na xamuñu woon kan moo ci topp ci caravane boobu waaye Salfa dem na Balha tamit gaañu na nee na ko gaalug dee gi du bàyyi kenn waaye kenn par kenn ay dem bis yi tamit noonu lay demee ku ci nekk rek. sa kaas bu ñëwee nga naan waaye salfa waaye fexoon na ba jë muy salfa mi balha mi gaañu tey jëmbatoon na ak noonu sama diggante ak sama biir doom kon balha mi génn tey àdduna maa ngi leen koy jàll yéen ñëpp yal na ko yàlla jéggal yal na ko dugal aljanna وأسأله أيضا أن يدخلها فسيح ñaan leen yàlla yéen ñëpp mu dugal ko aljanna aywa jël leen yóbbu ndeysaan kon gis ngeen Seydina Yaqub soxnaam yëpp jiitu nañ gis ngeen ni mu ko waxee euh, Rahil demoon na Layya Salfa tey Balha moo dem mu yeey ñoom Yahuza moo taxit jooyi bari na waaye gis ngeen foofu mooy seen dencukaay bi waaye góor gi ñaan na pour yàlla dugal ko àjjan leen aj àdduna nag gaal la guy dox ci ndox mi rek ak dee moom gaal guy xam ni ñëpp ci jaar ñëpp ci dugg ñëpp la yóbbu. أنا لا أستطيع العيش في القصر. الأفضل أن أنقل مكان سكني إلى مكان آخر. nee na man daal damaa war a tuxu dëkk feneen. nee na lu xew ba nga bëgg ba nga bëgg a jóge fi. الأفضل أن تبقى هذه القصور للحكام والملوك. nee na dama bëgg buur yi nag yor yor yor fii. أمنوا لي مكانا أكثر بساطة man ngeen defaral ma beneen beneen beneen kër. إن صبرت علينا قليلا فسأعمد بمساعدتي بيناروس ونيميسابو إلى تأمين مكان بسيط. nee na ko maag Nimisaabuur ak Binaaruus dana tabaxal geneen kër. إلى أرجاء مصر ودع حكام المدن ليحضروا إلى مدينة طيبة. nee na woon nga woo ñëpp àttekat yeeg ñëpp ñu ñëw ci dëkk bi. أيضا بعض معماريي مصر القادرين. يجب أن نبدأ ببناء المخازن بأسرع. léegi nañu tabax tamit lu jëm ci wàllu liggéey bi nañu tabax magasin yi ni mu gën a gaawee. يجب أن تبنى سبعة مخازن juróom ñaari magasin la ñu war a tabax. للمقام مخزن واحد كاف لمدينة طيبة nee na ko Tiiba moom benn benn magasin mag rek doy na leen. أولا إن طيبة هي مركز مصر. nee na mooy centre bi gën a mag. تكون مرجعا ومقصدا لكل مدن مصر والبلاد commerçant yeeg ñëpp fi la ñuy jëm si. ومن البديهي أن مخازنها يجب أن تلبي حاجاتهم. kon kon dañ ci def ay magasin yoo xam ne dana doy sëkk aajo nit ñi. بما أن الحنطة سوف تدخر بسنابلها ndaxte kii bi dañ ko war a denc seen sàq muy bësi bi السنابل فهذا يحتاج إلى مخازن كثيرة nee na bu dee yooyu nga wax moom dafa laaj yeneen magasin yu bëree bëri فمن حيث نقوم بادخار الحنطة اللازمة للناس نقوم بادخار العلف للبهائم nee na moom nee na dañoo war a def pour ñu dencal nit ñi seen seenu dund spécial bàyyi mooy tamit faaw ñu tabax leen foofu la ñuy denc léegi plan bëri yu suñ defar مأمن من رطوبة الأرض ومطر السماء وللوصول إلى هذه النتيجة علينا أن نحفر الأرض nee na léegi nag pour ñu mën a am li ñu bëgg il faut ñu gas nag ay tunnel تصنعون سردابا متينا بواسطة الحجارة léegi ay xeer xeer la ñuy toj def rek ko nag تبنون المخازن جنبا إلى جنب على السقف المتين léegi bu ko defee magasin bu nekk nekk ci wetu morom ma ñu bañ a sore يجب أن يكون سقف المخازن مغطى تماما fi nga xam ne fa la ñuy denc nag magasin bu mag bi moom mu nekk lu ñu couvert loo xam ne danañ ko sécuriser بالحنطة ba mën faa denc ci blé bi nga xam ne daf ay addu yàqu. nee na kon dañoo war a góorgóorlu tabax juróom-ñaari magasin. وفي زمان القحط يتم تناول الحنطة من léegi nag bu fekkee juróom-ñaari at yële ñëw na muy bekkoor bi xam ne dañ ko mën a jëfandikoo المخازن بمجموعات ولا نبني كل منها على حدة nee na est-ce que lépp dañ ko war a tabax ay xeer سوف تكون أهون ويقل عدد الحراس المطلوب لحراستها بأمر léegi nag il faut nag bu ñu noppee ci tabax bi ñu jox ñoo xam ne ñoo koy garde ñu wóor خرائط المخازن أنا عملت عليها سابقا nag man mosoon naa liggéey ci loolu يمكن لكم البدء mosoon naa liggéey ci déjà plan boobu defaroon naa ko ba pare moom la Youssouf di présenté noonu ولا يخفى على المشرفين المحترمين أنه بالتزامن مع بناء المخازن عليهم أيضا أن يبدأوا ببناء القنوات والمجاري التي تنقل لأن كو بنن بتمت بني تبخي مانغازين بباري فاو نيو تبخ أي ريغول يو خمني لا نdox مي جار nga xam ni mën na nekk ay bassin de rotation yoo xam ni dana garder dana garder ndox mi chaque fois rek ñu koy fexe ba di ci def loo xam ni ndox mi du gaaw a yàq xam ne bu demee ba ati bekkoor yi ñëw daanaka danañ ko mën a jëfandikoo ngeen ñu ngi commencé nag liggéey bi nee na dóor leen bu gën a dóor bu gën a baax gis nga ñi ngi nag Malick mi ngi proposé mu ne nañu góorgóorlu fexe ba euh, impôts yi ñu doon jël ñu doon ko euh, sauvegarde gis nga ku nekk impôt bi li ngay joxe ci xaalis moom la ñuy jël bu ko defee baykat yi ku ci nekk nga présenté li nga xam ne moom nga indi ci am marchandise ak yooyu li nga xam ne moom la ñu war a jënd ci ay produits li ñu war a jënd ci blé bi dugub jeeg lépp ñu fay la sa xaalis nee na est-ce que dinañ mën a sécuriser xaalis bi bu fekkee tabax nañ yooyu يعني واو كان ثمة سؤال فأنا أسمع وإلا فلم يعد لدي ما أقوله اذهبوا وابدأوا عملكم الجاد وابدأوا dem leen ngeen tàmbali liggéey bi nag que mu nekk liggéey bu dëgër bu gaaw parce que ñii dañu proposé benn magasin mag waaye Youssouf mun nañ def juróom-ñaar rek ba pare def ay tunnel yoo xam dañ fay ay ak yoo xam ni euh, moom lañuy ñuy euh, gas pour ndox mi comme que juróom-ñaari at yu njëkk taw bi day bari. bu ko defee loolu yëpp ñu sóoraale ko bu ko defee moom Youssou day déplacé nag fu travaux yi toll rek fu liggéey tool rek mu koy mën a saytu di ko xool di xool ndax niñ ko liggéey baax na proposé na tamit ñu defar ay ay ñu defare ko ay ay ay yu mag a mag mool yu rëy rëy yoo xam ni euh, donc nga mool yi ñu présenté ko nga xam ni daanaka ay mool bu nekk ay nit ñoo koy jàppoo ci ay buum yu rëy daal di koy xëcc yóbbu ko euh, ñoom tamit ñi nga xam ni mooy architecte yi nga xamee ni moom la dénk liggéey bi ak entrepreneur yi ñoom tamit toujours euh, bu ñu ñëwee buñ fu liggéey bi toll rek nga da ji présente yu gis nga ni ñuy liggéey magasin yi rigool yaa ngi noonu kon liggéey bu rafet la Youssouf ñooñu la nekkaloon ci kaso bi ay waxoon naa leen ay technicien lañ ay entrepreneurs yu mag a mag lañ ay architectes ñu bëree bëri façon métier bu nekk euh, moo ci nekkoon moo tax mu proposé woon buur bi ni ko dénk ma lu jëm ci wàllu suuf si mbay mi waaye tamit boolemaak ñoo nga xam ni danañ ko kii kon Youssouf fii lañ ko tabaxal léegi يقبل به حتى ولو كان خرابا <laughs> nee na ko no neen donte de donte da koy fay sax moom da dina dàkkoon liggéey bi baax na ci moom moom neen léegi nañ leen xool fële ñoo leen ñu xool gis nga léegi euh, juste loolu pré loolu ñu tabaxal ko beneen kër koo xam ne daal pale bi mu bàyyeekoog ñi ñi bëgg àdduna wàllu buureeg yooyu euh, moom comme que abid la jaam ko te yàlla la yonent la donc buy dalal bàyyam <coughs> bu demee ba bàyyam bi ñibbisi ba muy dalal bàyyam mu mën koo dalal ci kër goo xam ne daal du jotee pale bi dara ndaxte fi mu nekk amatul sécurité nit ñaa ngi koy bëgg a rey donc gis ngeen ñu ngi noonu di def rey bassin de rétention yi ñuy tabax ak yooyu yëpp euh, nga xam ne ñu ngi koy préparé pour li nga xam ne mooy filtrer ndox mi ñu nekk ndox mu set ndox mu baax ndox moo xam ni bàyyi may dañ ko mën a jëfandikoo waaye tamit euh, digool yaa ngi noonu nit ñi danañ ko mën a utiliser waaw gis nga toujours moo tax poste de responsabilité euh, ci wàllu liggéey bu fekkee am nga loo xam ne yaa ko man yow il faut mën nga koo demander ñu jox la ko bu dee keneen newu fa nag هذه الوثيقة تثبت أنك معفى من الضريبة lii mooy wane ni poy bi mooy wane ni yow joxe nga sa galak maanaam joxe nga sa impôt ki ci top na ñëw gis nga rang lañ def sont bien organisés kooku tamit gis nga xaalisam lay indi defee ñu defal ko facture nga liggéey yaa ngi noonu commencé nañu nag di bàyyi bu baax a baax euh, xotti nañ àll bépp kii moom nee na kii moom ñetti dafa joxe pour ñetti at kon loolu lañ koy signal بناء على هذه الوثيقة فأنت معفى من الضرائب لست سنوات yow am nga juróom benni at loolu am nga sécurité juróom-benn at na keneen ñëw gis proposé woon ko joxe impôt boo xam ne ñaari at la yow ñeenti at le feuille bi ñu lay bindal day day facture la bu yone ni yow léegi état na la assuré ñeenti at bu dee tamit da nga joxe bu juróom-ñaari at ñu ngi noonu di bay di di ji euh, nu mu tuddati bu dee da nga joxe tamit euh, galak boo xam ni pour ñaari at la menn at la ñu defal benn facture boo xam ni état na la mën a yor ñaari at ginnaaw ginnaaw bekkoor bi ah buy bekkoor bi ñëwee bu dee tamit da nga joxe galak boo xam ne pour juróom-ñaari at la léegi mooy tolloog fukki at ak ñeent ñu programmé woon moom lañ leen daal di jox bu nekk ak sa doole rek fu mu toll waaye gis nga Youssouf mi ngi noonu ñoom Malick ñoom ñëpp ànd di contrôler liggéey bi fu mu toll amul nelaw amul def dara liggéey rek waaw gis nga am na ay souterrain nee na matal ngeen jërë ngeen jëf te liggéey rafet na انتبهوا تفضل جناب مالك هذه المخازن مالك يجب أن تبنى بطريقة تكون فيها بمأمن من رطوبة الأرض dañoo war a tamit tabax ay tunnel yoo xam ne dafa am yoon wóor علينا أن نحفر الأرض léegi nag faaw ñu gas suuf si nag bu baax a baax pour mën a am tunnel yi تصنعون سردابا متينا بواسطة الحجارة nee na ay xeer yu mag ay birig lañ koy defaree جنبا إلى جنب على السقف المتين waaye nag magasin yi nañ jëndee nag dana bañ a sore te oto yi ak saret yi nga xam ne ñooy indi maanaam saret yi nga xam ne ñooy indi euh, dugub ji li ñu jëlee ci tool yi indi ko ci magasin yi duñ sonn waaye gis ngeen ndeysaan Yuusufa ngi noonu di visité nag ñëpp kontaan nañ ci moom gis nañ liggéeyam bi muy def liggéey bu rafet la buur bi sax mu nekk ni jot ci moom lu jafe la moom la ko waxoon keroog ni ko daal topp nga liggéey ba mën ba sa nga fàttali leen mën ko di def sama warugar ci laa nekk rek euh, jot moom ak jom nit mënu koo boole boo amee jom doo jot boo amee jot doo am jom Yuzarsif yadhabu ila fan la jëm mu ne nag léegi dafa dem Memphis pour pour dafay voyager dem man Memphis pour mën a xool magasin fa tabax liggéey bi fu mu toll gis ngeen gis ngeen point yi ñu jot a defar ngay sànn léegi nag Yuusuf dafay yi nag jëm dëkk bu ñu man Memphis pour mën a contrôler ci liggéey bi foofu comme nga nekk Sénégal war a dem Tamba rek wala nga nekk Dakar war a dem Tambacounda parce que chantier yi ma nga fa liggéey ba ma nga fa nga contrôlé gis ngeen euh, yi nga xam ni moom la Youssouf jot a def te diir bi mu toog yàggagul Youssouf mu màgg bi yàlla na dund ak jàmm yàlla na gudd fan. waaye mbokk yi ñu dellu ci Zuleyxa gis ngeen ko ndeysaan xale mamaa ngi noonu moom de ma ngay xalam rek mbokk yi gis ngeen palem bi ni mu xumbe woon ni mu ni mu wéttali ko woon waaye léegi wét na lool waaye Yuusuf gis ngeen ni mu wéttali ko moom ne woon na pale bi Zuleyxa bi jën a nekk ab kaso ci man waaye day wël léegi nag palais bi mujj na wét mujj wëlbatiku nekk kaso ci Zuleyxa ndax daam lu xewati علي أن أوبخك أولا لينطلق لسانك dama laa war a yéej yow sa làmmiñu gaaw yi nee naa gëj ngaa dégg si man xibaar yi xanaa. سافر يوزرسيف إلى منفس. يوزرسيف tukki na dem Memphis. tey tey waay waay waay màgget yi waay ndeysaan. laysa qimata ra'siki wahdahu ma yaj'aluki kal-af'ى bal inna kalamaki al-masmum aswa'u min summiha. yéen a ko yow doo ma andil benn xibaar baax xibaar yu mel ni poson rek xibaar yu métti rek yu naqar rek nga may andil ndeysaan. mimman sami'ti hadha boo déggee loolu waa Tiiba ñoo ko gis ba ñuy dem ñoo ma ko wax léegi léegi daal demal leer nu mbir mi nga ni ma xibaar bu wér ndax de tukki ne wala tukkiwul day ndeysaan wallaay la borom bu du waxoon wal xubbu yaataridu lazati bil alami mbëggeel de da lay mujj gaaral ay bànneex yoo xam ne ci ci naqar la lay mujjee léegi nag dañoo dafa dafa war ci ñun nag ñuy saytu Yuusuf bu baax. tabda nañ nag waroon nañoo rey Yuusuf bu yàgg. nee na ko da ngeen a yemb rek waaye bu fekkoon def la ngeen waroon defoon ngeen ko Yuusuf du mujj. لعله قد انكشف عندما كان يحاول أن ينقض على يوزرسيف ليقتله فقتل nee na ko la ñuy jaaxaloon mooy ka nekkoon ca pale ba ca dese woon ñu fa ca waroon rey Yuusuf gis nga mujj Yuusuf mujj na ko rey ah mujj nañ ko jàpp loolu nag ay may amun la léegi nag Yuusuf jaamaarloo gi mu jaamaarloo euh, loolu nga xam ni mooy bekkoor bi. ndam lim ci nar am mu ni amul moo ko may da ngeen war a yónnee ay ndaw ci église yëpp ñu xamal nit ñi loolu nag laqad gadara al-yawma sabahan ma'a ashabihi qasidan Memphis tey ci suba la fi Yuzarsif jóge loolu la ñu wax léegi man na laa def bu Yuzarsif nekkul ya ahli hada misr al-qadira yéen yàlla yi misra yu màgg yi te am doole yi ndax lii ngeen ma war a mën a tonte suufe naa ci yéen ngir Yuusuf jege ma waaye ngeen fexe Yuusuf yéen daal deful leen dara ba Yuusuf fekk nii sori na ma. loolu moo tax xawma lu tax daal yàlla am dimbali ko ci yéen mën leen maa dimbali xanaa yéen du ngeen faj samay aajo cooy waaye gis ngeen programme bi user si fëndi léegi yëpp ay bureau lañ fi def yoo xam ni euh, impôts yi niñ koy fayeek lépp njaay mi léegi mi ngi dox macha allah économie mi ngi dox bu baax a baax. بكرة نعم أتريد شيئا هل تذهب لدفع الضريبة أنت يا رجل لما تودع هذه الأموال عند هؤلاء ana sax xel lu tax ngay joxe alal ji mu ni ko man kay lii dépendre ci bekkoor wala ñàkk bekkoor ñun dañoo war a joxe suñu impôt rek loolu état moo ko tëral impôt kay état moo ko kon ñëpp ko war a joxe waaye mbokk yi gis ngeen façon biir yu nii de gi gis nga li Yuusuf waxoon mooy ñu góorgóorlu ba juróom-ñaari at yu njëkk yi moom lu ñu man ci mbay dina ko def nañ ko def parce que ñoom dañoo yaakaaroon ni niil rek moo mën a joxe ndox mi ñu daan bayee comme ni ko daan defee arrosé Yuusuf nee na juróom-ñaari at yi yëpp fépp fu ci àgg rek misra yëpp foo fi dem rek dana léegi neex a bay loo bay mu sax incha allah gis nga wut tamit yoon boo xam yoonu ndox la ok gis ngeen misra ni ko Yuusuf soppee moo tax ragal yàlla rek ak jub mooy sopp am réew mooy doxal économie am réew buñ la ko joxee nga xam lii dañ la koo dénk nit ko moom li la ci war len leen ci war kon nga fexe ba sàmmanteeg àqu nit ñi نبي الله يوزرسيف تحية الله عليكم يا يعلم دون يوزرسيف انتهت حراسة الأراضي الآن في واليوم أيضا سوف يتم بذرها عافاكم الله gox bi moom liñ fi war a bay yëpp bay nañ ko حاولوا ألا تبقى أي قطعة من المزرعة خالية من البذور nee na fépp fu ñu mën a bay daal fexe leen ma fenn des bay leen fépp àll bépp bay leen ko allahu akbar kii la fi teg kii tamit ca ba la nekkoon xammee ngeen ko yaakaar naa moom la dénk côté boobu nee na ko fii daal gox bi yëpp lu ñu fi war a bay bay nañ mu ne ko fexe leen ba suuf sëpp bay bu leen bàyyi fenn te xam ngeen nja euh, li ngeen war a am ci kii blé bu ñu ko jaayee pour war a mën a tabax lii lépp <laughs> nee na ko xam nañu li ay magasin la ñu tabax yoo xam ne pour lu ñu am ci kii rek yaakaar naa lu ci génn magasin bi dana ko war a mën a denc kooku gis nga ab labé la day saboté nee ko yéen yéen seen tunnel seen seen magasin mag yi yi ngeen di liggéey ni yaakaar ngeen di ngeen am euh, bële bu ci dem mu ne ko incha allah parce que ñun lu ñu programmé ak li ñu am ci suuf àll bi ñu am jiw yi ñu joxe yaakaar naa bu ñu yàlla dimbalee liñ bëgg yëpp mën nañ koo am mbokki njariñu suuf a ngi noonu suuf moom Euh, la yàlla waxoon ci alquran wa fi samaay rizqukum wa ma tuadun nee na liñ den lig di yëpp mi ngi ci kaw asamaan ak seen wërsëg mooy taw bi gis nga li ngeen war a dund yëpp mi ngi ci kaw asamaan maanaam mooy mi ngi ci ndox mi waaw inna sababna al maa sabba thumma shaqaqna al arda shaqqa fa ambatna fiha habba wa aynaban wa qadba wa zaytuna wa naxla wa fakihatan wa adba mataan lakum wa lan'amikum nee na aywa ji leen gaaw ji waxtu wi xat na pour ji ji leen rek xam nañ ni lu wér lu am la ah gis ngeen baa ngi noonu nag di sotti gis ngeen la Yuusuf waxoon am na de kon gis nga gént buur baa nga ji doog a tàmbalee nag tazrauna sab'a sab'a sinina da'ba fama xasadtum fadaruhu fi fi sumbuli illa qalilan mimma taxsinun aw taakuluun alaysa haadaa ajiiban waaw li yéeme na di ah Yuusu da xanaa daa xam lépp sa mbokk yi nag at yaa ngoog at yi naataange nag commencé naa ñëw waaye yàlla dimbali na leen tamit fekk na préparé woon nañu suuf si bu baax a baax am wóojoon nañ yëpp daw dawlu woon nañ it ci dugub bi nee juróom-ñaari at yaa ngoog di juróom-ñaari at yi nee na man daal jàng naa ne sama borom boromam da koy xamal lépp. ولماذا إذا لا تطيعون آلهتنا؟ la moo tax yéen ñaan leen suñu yàlla yi. la moo tax li am du ngeen ko nangoo feeñal te mooy dëgg ah gis ngeen dey macha allah. mbay ma gis nga ma ngay ma ngay génn ak ña nga noonu nag toll ci eh, defar bu baax a baax nga ña ngay commencé góob nag allahu akbar sëyeel kon mbokk yi li ñuy jàngal njëriñu suuf ñu góorgóorlu delluwaat ci bu ko defee ñi nga xam ne ñoom lañ yor ñoom lañ dénk commune yi eh, ñi nga xam ne ñoom lañ dénk nguur gi ñu góor góorgóorlu ba dimbali baykat yi taxaw leen waaye tamit ñu def consommé local cest à mooy li ñuy bàyyee ci dëkk bi di ko bàyyee ci réew mi état di dimbali nit ñi pour ñu koy dunde loolu dana tax xaalis bi état di jël di ko yóbbu ci bitim réew di jëndi am am ak dund du ko jar daanaka bu la yàlla joxee suuf su bari jox la àll bu yaatu da fexe ba tàggat ay ndaw ci wàllu bay wala agriculture ak yu demee noonu jox leen ay moyens dimbali leen pour liggéey bi gis nga ni ñu koy sécuriser encore euh, mooy lépp loo xam ni lu ngeen ci am rek nee woon leen na ngeen ko teg ci sun bu lam na ko wut ngeen ko denc foo xam ne du gaaw a yàq defar ay sàq gis nga ñu ngi commencé yégal nag nga sàq yi niñ yi am ni mu toll mag a mag yoo xam ni li liñ ci programmé mooy mën naa denc lii ñu ci denc dugub jeeg yooyu dugub ji nag ñoom duñ ko bësi bi ak mbokk ni fi nekk nii duñ ko duñ ko kii duñ ko euh, duñ ko wal duñ ko it euh, soq mais dañ koy daal di bàyyi noonu rek ak ñax mi denc ko noonu ku ci nekk la nga jot a bay nga ni ñu peese ko seet nu mu toll ñu fay la ko ci xaalis waaye tamit ñi ngi ci ànd ak dimbal dimb dimb euh, loxo yi ñi nga xam ni borom alal lañ ñoo leen gën a dimbali surtout état loolu proposé woon bisu da ngeen xutba bi mu defoon mooy nañu fekkee borom alal yi fa am alal ku ci mën a joxe impôt boo xam ni sept ans la euh, ku ci mën a am dugub tamit yoo joxe wala ab ab jiw lu tolloog juróom-ñaaraat ñu denc ñu jël ko taxiyatul alihati alayk. maanaam yàlla ji. taxmilu xintataka. maanaam yàlla ji litaquma bitaslimiha. ajal yajibu an. da nga koy joxe yow sa bés. wa ma adraka anna xukumata. mu ni de dañ ko war a denc pour atum bekkoor yi ñëw. sawfa taruddu laka alxinta ida ma xalla zamanu alqaxt. mais est-ce que wóor na la ne état yu su jorsi bi dana la delloo seef. mu ni wóoruma nag. dañ koo dañ koo jàpp rek. ألن يكون بالك مرتاح؟ nee na ko sa kër nga ko waroon denc. ولكن يوزر سيف إنسان صالح وأنا أثق به كل الثقة. يوزر سيف wax nit nit ku dëgg la. فعندها تتبين الحقيقة. يوزر سيف nee na kon nit ki bala ñu koo xam rek mu nekk ci ay jafe-jafe. يكون مختلفا عن يوزر سيف في زمان الوفرة. nee na ko jamonoy bekkoor bi dana wuuteeg jamonoy ban kii bi de dana wuuteeg jamonoy naataange bi de. lii da nga ko waroon denc sa kër nga ne da yóbbu di ko di ko joxe état bi est-ce que état dina ah, de waaye daal ñun da damaa gëm yu def ku dëggu la rek ndax lépp lu mu ñu mos a ñun gis nañ ko waaye mbokk yi daa mel ni nawet bu njëkk bi at mu njëkk bi tool yi nangu na lool. أبقى هنا بينما تقومون أنتم بتفقد المزارع الأخرى nee na ko maa ngi des fi xaar leen ngeen xoole yeneen baykat yi yeneen ak yeneen tool yi fépp la ñuy xool duñu bàyyi kenn هل ترحبون بضيف غير مدعو؟ أهلا بك سنسر بذلك ndax da ngeen di di ngeen di ngeen di ngeen teeru gan goo xam ni شكرا لك kenn woowu ko fi yàlla na yàlla may jàmm بشكل لم أرى ndax li ngeen ji góob bari na حتى إن أجدادنا لم يذكروا لنا يوما nee na ko li ma am kay mosuma ko am sama dund كل من يتعب ويسعى سوف يرى نتيجة أعماله nee na képp ku sonn مهما حصد képp ku sonn rek di nga gis résultat هذا جيد فغاية أمل كل مزارع أن يكون حصاده وافرا عزيز مصر مستمر nee na wax dëgg ñun li ñu góob bari na loolu ko ndaw si wax mun ko li ma lii sama yéene daal mooy képp ku képp kuy baykat rek nga am lu bari ci li nga defoon xam naa ni lii yëpp ci eh, ci jeexitu xéewalu suñ borom la muy. أخبرني أنت هل تقوم بمساعدة أبيك؟ أجل أقوم أنا وأختي بجمع فواكه أن يقوم أبي بحصادها أحسنت يا فتى waaw sama baay kay su kii rek ñu daal di koy jël yóbbu ko ca sàq ma denc ko fa البيت التالي يجب أن تعين أباك nee na ko yaay borom kër gi après allahu wat kon na nga dimbali sa baay ndaxte yaay topp ci ginnaawam هذا يكفي شكرا yow lekkoo dara di sëñ bi sëñ bi lekkoo dara di hafidakallah wa raak jërë ngeen jëf yal na yàlla wattu leen allahu akbar léegi dégg ngeen lim dénk doom ji nee na ko waa kii kan la man ko mu ne man jurum jur maa laaj turam sax yow waxuñu yaay kan de foo jógee maa yuzar siif maa ngi seen taalibe allahu akbar maa ngi seen surga cay la hawla wala quwwata illa billah كان هذا يوزرسيف أجل يوزرسيف عزيز النصر حل ضيفا علينا وشاركنا طعامنا mooy kilifa Misra waa bokk ñun suñu lekk ñun ay baadoolo yi allahu akbar bokk yi dégg ngeen li ne Yuusuf wax ana Yuusuf xaadimakum yal na la yàlla yi aar cay ndeysaan Yuusuf kilifa dëkk bi mooy bokk ñun lekk nii waa kii daa rafet waay cay ndeysaan te baax loolu dégg ngeen li mu ne wax ne ana Yuusuf xaadimakum man maay usertif maay seen surga allahu akbar moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni sayyidul qawmi xaadimuhum nee na sangu nit ñi mooy seen ki leen di liggéeyal waaw waxul ana usertif azizu misra de déedéet maay kilifa misra déedéet waaw ca mooy chef du gouvernement nag moo jiite réew mi ndaxte buur bi buur la moom daf koo dénk lépp mu ne waaye man seenum surga la kon yëg na responsabilité gi yu ko yàlla dénk kon du ci du jëmmi boppam waaye dafa yëg ni natt la bu ko yàlla teg aw sas la bu ko yàlla jox woo xam ni baaxu bu réew mi ci xam la ko yàlla teg waaye tamit euh, lépp loo xam ni manqué na rek yow yomal xiyaam moom la ko yàlla laaj moo tax mu ni man la usage sur seen surga kon ki ñu dénk benn poste de responsabilité moo xam nga nekk maire wala nga nekk président wala nga nekk ministre wala nga nekk chef de village jàppal ni yaay surga bu waa dëkk bi هذه يتم حصادها اليوم yëpp góob nañ ko lii la ñu góob tey li féete ndeyjoor li yëpp des na tuuti côté bi na ngeen góob lépp tey yal na yàlla dimbali leen tey gis ngeen Malick ku man liggéey la Malick tamit gis nga liñ ko dénk euh, mooy coordonnateur bi waaye mbokk yi gars yi liñ bay bari na de waaye liñ góob it bari na خمسة ألاف أنت هل تزرع على أرضك أم تزرع على أرض الحاكم؟ على أرض الحاكم كيف كان حتى الآن تجاوب الناس مع تسليم الحنطة؟ لم يكن كما ينبغي لقد تسبب الكهنة في امتناع الناس عن تسليم الحنطة بما أشاعوه من التشكيك بينهم labbe yi ñoom fexe nañ ba gàllankoor ñu bëri pour ñu bañ a bañ a indi seen seen kii seen dugub nee na kon wool wool nit ñi ma waxtaan ak ñoom kon war naa def discours nag déglu leen Yuzarsif dafa bëgg a waxtaan ak yéen kon arrêté leen seen liggéey ngeen jege si. nga taxaw fu kawe pour mën a nit ñi mën ko dégg waaye du taxaw الكهنة يحاولون ثني الناس وصرفهم عن تسليم الحنطة xam ngeen ni nit ñi labbe yi ñu ngi jéem a gàllankoor nit ñi كل منكم حر التصرف في حنطته man baax na terewuma leen loolu يمكنه أن يحتفظ بها عنده في ndaxte yéen ay góor ngeen yéen a moom seen bopp ci ni ngeen di doxale seenu mbay لكن لا بأس أن أكرر عليكم هذا الأمر مرة أخرى نحن في زمن القحط waaye maa ngi waxaat ak yéen ba tey dañoo dëgmal atum bekko bekkoor. حكومة مصر ملزمة بأي شكل من الأشكال بأن تؤمن لكم الحنطة إن كنتم قد أودعتم حنطتكم عندها مسبقا ولهذا إن عمد أحدكم إلى ادخار حنطته عنده وفسدت حنطته لأي سبب من الأسباب سوف لن يستلم أي حنطة منه وأنا هنا أوصيكم بأن تضمنوا قوت عوائلكم عبر إيداع الحنطة في مخازننا عليكم إخبار الآخرين بهذا الأمر مالك télé euh, bi ci ci seen kii yi kon ngeen góorgóorlu baax a baax loolu nga xam ni moom la kii bi doon def loolu nga xam ni moom la labay di def di jéem a gàllankoor nit ñi gis ngeen nit ñi niñ bare ak ñi ñëw pour indi seen kii pour ñu denc ko bariwuñ léegi moo tax bi mu laajee nag ñu ne ko ah labay daal ñoom ñooy gàttandu nit ñi di leen gàllankoor di leen wax dem la ngeen denc ko seen kër bu leen ko indi fii وأنا لي ملء الثقة بيوزرسيف وأنا أيضا nee na man daal am naa am naa sama xel dal na ci Youssouf vraiment لقد قالوا أن تدخر الحنطة بسنابلها فماذا تفعل أنت؟ أنا أرق القمح هذا ما أفعله دائما لكن الظرف الآن مختلف عن السابق نحن مقبلون على قحط أنا لا أصدق ذلك فهذا كلام يوزر سيف أي قحط وماذا إن حل القحط؟ أنا واثق أنه لا يوجد أي قحط وليكن فلنفترض أنه حل nee na man gëm naa ne bekkoor du am تدخر ماذا ستفعل عندها Youssef nee na ko loolu day am de léegi bu amee léegi nooy def أشتري الحنطة من الحكومة لكن على léegi ci état bi laay jënd man فإن الحكومة لا تعطي الحنطة إلا لمن أقدم على ادخار الحنطة في مخازنها وحصل على مخزون من الحنطة état bi du jaay koo xam ne wóor na ma ne état du jaay ko ko jóg عندما نرى علامات اقتراب القحط نقوم بالادخار nee na ko waa am na ban mandarga mooy mandarga yi wane ne mandarga yi bekkoor day am فالذخيرة هي ما قمت بإرساله سابقا nee na ko bu ngeen deful loolu day denc denc gi ngeen bëgg ci seen mbay mi du mën a nekk فإن الأرض لن ترى قطرة ماء واحدة ولن تنمو حبة قمح واحدة baa xam ngeen ni suux ndox mi xasee ba tëju asamaan suuf si dootul gis ndox كما لو أنك خليفة الآلهة yow ni ngay wax daa mel ni wóor na ci wóor la de أو كما لو أنك yàlla yi ñooy wàcc ndox mi قادم وعاينت الأحداث أجل am yow da ngaa ràññee mbir yi da laa wóor man yonent bi yàlla laa إن زرعتم وادخرتم في هذه السنوات السبع بكورو بكورو في مزرعة الدنيا فسيكون مصر دائما لكم حصاد يوم القيامة القحط التي هي بمثابة الآخرة لكن من يفعل عن اجتهاد والادخار فلن يكون صاحب زاد ولا في يوم المعاد nee na comme mi ngi noonu ñu dencee ni ñu yóbbale suñu jëf yowmal xiyam rek noonu la mbir mi mel at yii nga xam ne atu naataange la nañ ci góorgóorlu bay ci pour àll at yéene ñëw moom ñu mën a am yóbbal yaay kan yaay yusuf man maa yusar siif bi di dégg allahu akbar cay dañ ko doon dégg xamuñu ko woon moo tax wër gi baax bu toogoon këram mbokki ni maay kilifa gi dara ñu bëri duñ jot ci moom waaye jii da ko doon dégg rek waaye mi ngi doog a xam ne nag kii mooy yusar seet fépp la dem amul fu mu bàyyi waaye mbokk gis ngeen Zuleyxa gis ngeen Yusuf voyage bi mu def sore na nag parce que ay at la fa ay def na fa ay jamono ngir saytu tamit dëkk bépp comme jóge Dakar dem Tamba def fa weer jógee Tamba dem Kédougou def fa weer jógee Kédougou euh, dem Saint-Louis noonu rek lay demee dugg ci biir àll bi nag. que. Sayda Zuleyxa léegi nii la mel ndeysaan soxna Zuleyxa sang bi. hal ji'tani bi naba'in an Yuusuf. ما زال خارج المدينة. ndax da nga maa andil xibaar bu jógee Yuusuf. يقوم بالإشراف على بناء المخازن وزراعة البساتين وجمع tabax ay tunnel. إنه مسؤول عن شؤون المخازن ومواجهة القحط. li ñu bay yëpp ñu ngi koy jéem a dajale ci sàq yi juróom-ñaari at yi passé waxtaan nañ teg Axnaatuun nga xam ne mooy buur bi léegi. سوف أحاول أن أحدث أصحابي فقط ليقوموا بإخبار إن رأوا يوزر ستيف أو سمعوا خبره أنا أريد أن أصلح جميع nee na damaa bëgg waxtaan ak ñi garde palais bi yëpp li ma li ma bëgg nee na ko ay weer ak nii nag fayeekuwuñu kenn fayu leen ay weer yor palais bi léegi kay yow yaa war a xool loolu nag fay leen nee na ko Rodamun moom du def lu dul ndigal lu jógee ci yow rek nee na ko ñiy liggéey ci palais bi yëpp fay leen seen salaire. هؤلاء الحراس بعد موت nee na ko palais bi moom soxlaatul ay liggéeykat daanaka ginnaaw bi Potifar dee ba léegi daal soxlaatul lu bëri waxal ak ñëpp lu nekk nii léegi mbokk yi fii nag لكن سيدتي mbokk yi problème am na nag لا أمان في القصر من غير حرس ستصبحون في معرض السرقة nee na ko palais bi faaw mu am ñu koy garder بالي مرتاح sàcc yi dañuy bëri kon أعلم أن عواقب هذا القرار خطرة وأني لا أستطيع أن أطلع بهذا الأمر وحدي لكنني أطيع أوامر السيدة زليخة neena man rek mënumaa doxal mbir moomu li may def mooy garder Zulayxa kon gis ngeen palais bi daa mel ni dundatul liggéeykat yi moom la ko Rodomon doon wax ni ko ñiy liggéey ci palais bi ñiy garder palais bi ñëpp ci bëri ñetti weer ak ni daanaka fayeekuwuñu nee na palais bi day am na jamono joo xam ni mooy deuxième palais bi bërëb gën a ci réew mi nee na ba ma nekkee ba ma ñàkk ba ma ñàkkee borom kër ba léegi pale bi daal daanaka noonatul ab pale mu ne dëkk koo tuddee pale ndaxte man dama taal ba ma taalee sabarat soxor ci sama xol bi jëmale ko user si ba léegi ci la pale gi daanaka daanaka mënatoo ko ràññee ak néegu baadoola yi Dead, dead, dead. عليك أن تدفع الرواتب المتأخرة لكل الحراس وخدم القصر وسنحن جميعا لم أعد قادرة على دفع الرواتب ku duru na moom daal jéggal nañ ko léegi mën naa wuti beneen métier. جناب خوف عليك بتسريح كهنة المعبد waxal ak ñi ci labbe tamit waxtaan ak ñoom léegi seenu dund mënatuñ koo sécuriser nee na ko ba ba mbir mi moom ba mu tëjoo mooy ba yéefar bi dugg see ci palais ba léegi Yuusuf lay wax mu dugg see ci ba léegi yéefar boobu daanaka ci la mbiru amun yëpp tëju léegi il ay nit ndaxte palais bi